noonu la Balham ibnu Baahura wéyalee aw yoonam ngir yéeg ci kaw montagne boobu mën a ñaanal Seydina Moussa alayhi salaam ak alkaande moom ak ay soldaaram noonu la Balham yéegee ci kaw montagne bi daal di tàllal loxo boromam ngir ñaan ñaan googu nga xam ne moom la ko aw nitam sant te mu jànkoonte coono yu bari laataa muy ñaan ñaan googu ndax li saxaar na ay yoon yàlla nangu ko waaye li saxaar yi mujj yi yàlla tontuwu ko moom it mu jàpp ne dafa war a dem ñaan léegi Moussa mi nga xam ne ab yonantu bu yàlla la moom Balxaam mi nga xam ne nitu yàlla la bu am xam-xam bu am ijaaba waaye muusa itam ku yàlla tànn la ku yàlla yónni la noonu la Balxaam tàllalee loxoom commencé ñaan aw ay ñeel Moussa ak waa këram waaye ay wu mu ñaan ci waa kër Moussa yi yàlla daf koy wëlbati contrairement du koy wëlbati ñaan gi këpp ci kaw ki nga xam ne këpp ci kaw ñi nga xam ne ñooy ay nitu balxaam yi di waa kanaan yi lépp loo xam ne ñaan na ko rek ci lu bon day këpp ci kaw mbokkam yi waaye lépp loo xam ne ñaanal na ko mbokkam yi ci lu baax day këpp ci kaw waa kër Moussa yi bi mu demee ba nga xam ne nag mbokkam yi sonn nañ ci musiba yi dal seen kaw ak balaa yi dal seen kaw ñu gis ne balxaam li muy ñaan yépp seen kaw lay këpp ñoo ne ko balxaam waaye yow xanaa dangaa seetlu li ngay def yow kat li nga ñuy ñaanal li nga ñuy ñaanal ci lu baax yépp ci waa kër Moussa yi lay dem waaye li ngay ñaanal waa kër Moussa yi ci lu bon yépp ci ñun la ñuy dem xanaa mënoo xool ñaan bi nga wëlbati ko balxaam wëlbati ñaan gi waaye fu mu ko wëlbatee rek yàlla moom ci lim tànn mooy lépp lu mu ñaan rek waa kër Moussa yi ñoom dañuy mucc waaye moom balxaam mi am yéene ju ñaaw ñeel Moussa te xam ne Moussa yonentub yàlla la moom waa këram du ñu mucc moom ci boppam du mucc ba fa mu mujjee moom balxaam dafa jékki-jékki yàlla daal di koy natt nattu tàngoor wu métti daal di koy dugg bi mu duggoo yaramam bi mu duggee ci yaramam balxaam daal di tëdd mel ni kuy lox jékki-jékki gémmiñ gi mel ni luy fuur làmmiñ bi di rocceeku di rocceeku ba commencé di wattatu ci suuf nga xam ne alkaane da koo dikkal nga xam ne ku seen làmmiñam bi day mel ni làmmiñu xaj maanaam làmmiñ bi dafa génn di rocceeku bay lank balxaam nga xam ne ñaan sax mënatu ko yàlla alak ko ba nga xam ne moom balxaam ku ko gis rek sa xel day dem ci xaj aw nitam nag daal di tiit daal di koy wër daal di jaaxle lool ndax seen pexe jeex na balxaam ne leen man de yàqu naa àdduna yàqu naa alaaxira yàqute gi nga xam ne xamoon naa ko te itam yàgg naa leen ko maytuloo di leen ko wax ne leen Moussa mi koo ñaanal waaye ngeen sës ma topp ma maanaam ba ci miir bi ngeen sës ma ci miir bi mayu leen ma dara sonal ma ba ma topp jëfandikoo sama bakkan ma itam ba alkaande gi dal sama kaw Moussa du ko ñuy ñaanal balaa nag ne leen kon comme alkaande gi dal na ma nag léegi perte naa te ñàkk naa àdduna ñàkk àllaaxira lenn rek laa gis comme solution mooy ñu nit ñi jéem a fexe am pexe mu ñaaw jëmale ko ci muusa pexem zaahir comme baatin bi moom yàqu na yaxet maanaam mënatuma ñaan yàlla mu nangu ko te yàlla alag na ma te dara warul ko doon Moussa ak waa këram kon ñun itam nañu fexe ay fexe ñeel Moussa ak waa këram. noonu itam nitu balxaam mi daal di laaj balxaam ne ko ana lan mooy pexe ginnaaw bu la yàlla dafa lay xam-xam bu bari ak xel mu xel mu set xoolal ñu pexe boo xam ne moom lañuy pexeel waa ba banu Israël yi mooy waa kër Moussa yi balxaam daal leen wax pexe mi de gis naa ci lenn mooy dañuy fexe ba li ñu dal ñun mu dal leen ndax ñun lu ñu dal du dara lu dul dañoo mooy yàlla ndax yàlla digalu ma ma ma digal na ma ma bañ a ñaanal Moussa man ma mayu ndigalu yàlla yi dal di ñaanal Moussa moo tax ñu ala ko ñu itam ñoom itam nañu fexe ba mooy yàlla ki ñu def ñoom ñu def ko daal di ala ko ay nitam ne ko ñoom nan la ñuy mooyee yàlla moom ñoom ñi nga xam ne dañoo ànd ak yonantub yàlla balaa am na leen. li ma gis comme solution mooy ñu fexe jël sunuy xale yi jigéen ña ca gën a taaru ñu tànn ña ca gën a rafet gën caa jekk ñu waajal leen waacaay wu jekk defar leen ba nga xam ne ku leen gis danga leen di bëgg ñu bëmaax leen ci biir soldaar yi yi maanaam ñu fexe ba sant leen ñu jaxasoog soldaar yi ba nooy Israël yi di jëndanteeg ñoom di jaayanteeg ñoom di kóllaranteeg ñoom te ñu fexe ba. suñuy jigéen ñu digal leen nañuy nangoo bañ a tere seen bopp nañuy bañ a tere seen bopp soldaar yi yi. maanaam képp ci ñoom koo xam ne soldaar yi Moussa yi soxla nañ la ngir sëy yow bu leen tere seen bopp maanaam bu soxla nañ la ngir sëy yow nga yombalal leen ko jox leen sa bopp ndax su boobaa bu ñu moyee yàlla rek dañuy tolloo ak ñun li ñu defoon ba yàlla alak ñu ñoom itam dañ koy def yàlla dal leen alak xalaat boobu la Balham ibnu Baawura daal di joxe. ñoom itam ñu defee ko noonu daal di waajal seeni jigéen defar leen ba ñu taaru ñu dugal leen ci biir soldaar yi banoo Israël yi. ñuy jëndanteeg ñoom di jaayanteeg ñoom daldi di soldaar yi banoo Israël yi ci xew-xew boobu am ci benn jigéen bu taaru bu ñuy wax Kapsa bindu Soriya gisante kenn ci kilifa yi banoo Israël ku ñuy wax Samra. waa ji bi mu gisee Kapsa soxna soosu di Kapsa nga xam ne dafa taaru lool. Kabsa doomu Suuriya mu nekk soxna su taaru lool moom Zamra duñ ko gisee dafa tàqalikoo ak sagoom daal di ñëw rek jàpp ci loxo xale bu jigéen bi ñëw ba ci wetu Seydina Moussa daal di ne ko xam naa ne nag li ma lay wax su ma la ko waxee faw nga bañ naan ma lii tere nañ ko araam nag nangam nangam waaye soxna si moom xemmem naa ko te faw dinaa jaxasoog moom naa Moussa ne ko boo jaxasoog moom itam di def lu araam ndax araam na te yàlla bëgg ko waaye samraax ne ko sa wax jooju du tee li ma bëgg a def ma def ko noonu nag la samraax moomu daldi jàpp ci loxo kapsa boobu yëbbu ko bi ci biir néegam noonu lañu futtee ko da nga am ay jafe-jafe ci sa wàllu dundu jàngoro rab ak cat ba ci sax tëju ci sa wàllu wërsëg lii yépp mën na la gàllankoor ba tax loo yaakaar rek mu tas waaye nag bul xàddi benn yoon ndax xam-xam moom fa mu nekkoon ba tey jugu fa dawal gaaw seeti sëriñ Mohamed Diakhaté yàlla may na ko te xam-xamam kenn naatable wu ñi am jafe-jafe néew kattan ci wàllu sëy sëriñ Mohamed Diakhaté andi na leen ci ay garab yu baax te wóor gaaw lool ci paj mi ngir jokkoo ak moom wooteel ci numéro téléphone bi 78 201 82 44 ak sëriñ Mohamed Diakhaté ñëpp nangu nañ xam ci listixaar ak ñaan daal di commencé jaxasoo maanaam di sëy ñoom ñaar waaye ci seen biir sëy boobu bu ko tàmbalee la mbugalum yàlla commencé wàcc seen kaw muy mbas mu métti mbas moo xam ne tawat la goo xam ne lu mu gaaw gaaw gaaw dugg na ci lu bëri ci seen soldaar yi seen yaram ba ñu bëri ci soldaar yi commencé di daanu benn par benn di sëqat di waccu di faatu di alaku benn par benn. noonu nit ñëpp jaaxle lu bari ci nit ñi mbas mi dugg na leen ñooñu commencé di faatu benn par benn Seydina Moussa itam di jooy di tawasul di ñaan yàlla ànd ak jaaxle lool waaye seen jaaxle googu teewul ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo waral mbir mi ña nga ca biir néeg ba di sëy ci ay simili. mbas mi daldi dinay tasaaroo ci seen biir ba lu bari ci ñoom faatu ñaar ñooñu itam ña nga ca njaalo ga moom Zamraax ma nga dégg nit ñi yuuxu alkande gi wàcc seen kaw foofu noonu am benn waay boo xam ne ci banoo Israël la bokk koo xam ne dafa génnoon waaye bi mu ñëwee yem ci xew-xew bi ñu nettali ko ni yëf yi demee mu dugg ca néeg ba fekk Zamraax tëdd ci kaw kapsa ndaw soosu waa jooju nga xam ne dafa am doole lool dal di jël aw xej dal di leen koy jam ñoom ñaar ba mu sar ci seen biir yi ñoom ñaar ñu daal di faatu ñoom ñaar noonu la waa jooju bokk ci banu Israël daal di jël ñaari néew yooyu mooy Samra ak Kapsa ñu doon njaaloo daal di leen yëkkati ak loxoom tàllal ko ci kaw asamaan si daldi di ñaan sunu borom ne ko yow sunu borom maa ngi lay ñaan. natt bii nga ñu teg ngir lenn ci sa jaam yi nga xam ne dañ laa mooy nga musal ci sa yërmande ndax lenn ci ñun dañoo ko def waaye du ñëpp ñoo koy def du mu ñaanee ñaan googu yàlla su borom daal di nangu ñaanam mbas moomu daal di arrêté waaye wax nañ ne ci benn waxtu rek bi ñaan ñoo ñu commencé woon di njaalo ak bi xew-xew bi am ak bi waaj di ñaan nga xam ne benn waxtu ci lay toll lu ëpp juróom-ñaar fukki junne yi doomu aadama faatu nañ ci ci mbas noonu la leen yàlla mbugalee noonu itam waa banu Israayil daal di dajalawaat Moussa jiite leen ñu tuub delluwaat ci yàlla tuubalaat yàlla defaraat seen armu ñi faatu tamit ñu dajal leen suul leen noonu la Seydina Moussa woyalee ab liggéeyam ak aw yoonam muy xew-xewam digganteem ak Balham ibnu Baour lii nag di histoire Seydina Moussa alayhi salaam ak Balham ibnu Baour mooy histoire bi ñu bëri doon laajte mooy histoire Balaam ibnu Baor xew-xew bii nag ñu mën cee jàngatee benn mbir bu am solo ci Balaam ibnu Baora ak sunu tolluwaay jamono bii ndax gis nañ ne benn phénomène boo xam ne maanaam benn mbir moo xam ne nit ñi commencé nañ koo xewal te muy danger bu rëy rëy rëy ni yàlla ànd ak Seydina Moussa alayhi salaam nga xam ne yàlla moo ko tànn mu nekk ab yonentam yàlla na tànn ay nitam ñu nekk ay laa maanaam ay waliwu yàlla ay nit ñu baax nit ñoo xam ne dundatuñu te seen dund yëpp dañ koo ceexal ci jaamu yàlla ak topp ko waaye ñu seetlu ne jaru sax ñuy sori waaye sunu réew mi ñu nekk rek gis nañ ni phénomène bi commencé naa bari ndaw yoo xam ne ba ñu juddoo yàggul xamuñ ci àdduna lu bari seenum njàng soriwul wala bu soree itam seenum njàng des na nga gis leen ñu taal seeni téléphone nekk ci internet bi ci réseaux sociaux bi di jàpp ay waliyu yàlla di leen saaga di yàq ci seen der lu ñaaw a ñaaw di leen xas di leen korité di leen sosal di leen duural di wax ci ñoom ak seenu njaboot wax yu ñaaw mu mel ni sunu réew mi dafay commencé bari te muy musiba bu rëy rëy rëy boo xam ne boo ko la a alkande waaye li ñu mën a jural kenn xamul nu mu toll ndax waliyu yàlla yooyu seen der poson la lu ci waay laal musiba bu rëy rëy la ci yow ak sa njaboot ba mën naa bañ yem ci yow waaye day ñëw ba ci say maanaam saw askan ndax gis nañ ne Balaam ibnu Baawura moom ndeysaan nekkul woon sax di saaga Moussa moom ñaanal Moussa yàlla képp la doon def yàlla alal ko ci ak martaba bi mu amoon moom Balaam ak ijaaba gi mu amoon teewul yàlla faral Moussa ndax tànn gi mu ko tànn daal di alak Balaam alak aw nitam ba lu bari ci ñoom faatu mu rocc làmmiñam ba làmmiñam doon làmmiñu xaj waaye noonu nga gis ne yàlla alak daleen ngir ñaan gum doon ñaanal Moussa rawatina nag ndaw loo xam ne yow juddoogoo say at bëreegul ñoo ngi am avenir ak yaakaar ci yow nga taxaw yor sa téléphone nekk ci réseaux bi liggéey woo defoo dara ngay saaga ay kilifa di saaga ay nitu yàlla ñu sell mu leen di naqari di naqari seen njaboot di naqari yàlla di naqari képp koo xam ne jullit nga wala nga nekkoo sax jullit waaye nga bëgg lu baax te jub xam ne lii jaaduwul rafetul tey ëpp na di gën a yadd ak di gën a ñaax ci kuy def loolu wala ku amoon yéene def loolu nga delluwaat ginnaaw ndax wax ak xaste ak saaga ak toppante def defarut réew réew jëf moo koy defar ak di produit yi loo xam ne luy jëmale réew mi kanam la lii moo nekkoon histoire bi ñu leen andiloon ñu jox leen di daje beneen histoire asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa